bon tu vas me dire que c'est la loi du showbiz. que couille de dafa bëri sa kaw. que Amna, na ñoo xam ne nga dem. mais je supporte. ok Boubacar di may gisee nii su ma demee ba mënut ma ko supporter man bëgguma bëgguma du ñàkk fayda su ma demee ba mënut ma ko supporter je vais sortir carrément je dis que je supporte plus ah. gars yi Wow! dama mën naa ko supporté dama koy dégg te man wóor na ma wóor yàlla nii booga man tàmbaleegu ma sax. daay li ngay wax nag. départ gu ma kaay ma expliqué la fu ñu nekk nii 2S. 2 2S ak kan ñoo jumelé. teg ITV ITV. est-ce que yàq na dara ci seen liggéey. non yàqul dara seen liggéey. non.

man tàmbaleegu guma sax. Ya. definitely. je dors pas assez. nelaw go ba yandor talumako parce que xamna ni euro nelaw jotagul. Mhm. liguey mo fi nek wa Boubacar man ñanuma yalla yenn agi ma am ko di musique ba legui su ma ko amee damay tok Ya, suma ya, khalis yaa yaa man lo la gëm liguey dafa fayeku boo am noppalu am to smoke, I'm going to damay with my family. with my family. that's it. lovely. <laughs> lovely.